dani sama waay da jàmm ñal jaara wusu wala ma se bi jaara jurujub li am solo mooy ci li jiitu mooy nu waxtaanee sunu réew ndax sunu réew ah fitna na fi te mënoon nañ juboo ànd xàccandoo dóorandoo te loolu weesuwul ñu yaakaar ni ci jamono bi ñu toll fii ak jongante yi di ñëw waral nañ mun waxtaane suñu réew ñu jubóole doomu Sénégal yi tappe xol yi ni ko maam Abdou doon waxee ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñu nekk ci jamono bi nga xam ne am na solo ñu waxtaanee ko tamit ci wàllu jàmm ji nga xam ne ñu ko am ci biir Casamance te ñu yaakaar ne war nañ cee lawal ñu continuer di ñaan yàlla jéego yi nga xam ne def nañ ko ci njiitu réew Macky Sall def ko ñu continuer di ci wéy ndax Sénégal bu bees bu ñu bëgg tabax waaye it yokk doole gi nga xam ne ñii nga xam ne ñoo yor kaaraange suñu réew ci biir ak ci biti ñooñu tamit lépp lu nu war suñu diggante ak ñoom ngir sàmm suñu réew ñu continuer di leen dooleel di leen déglu di leen gunge ndax jàmm rek a xaj ci biir Sénégal di nuyu sunu mbokku sénégalais yi nga xam ne ñu ngi bitim réew nga xam ne doonoon jaaxle ndax li ñuy dégg ci seen réew ci lu bari mën a nekk njaqare ci ñoom di yaakaar ni ñoom ku leen déglu di nga xam ne li ñu soxla yàlla xam na ni bariwul dañoo bëgg seen réew taxawu leen ci bépp anam bi nga xam ne ab soldaaru Sénégal génn na réew mi di dem xeexal Sénégal di ñefeel Sénégal mu war nag réew mi que bu ëllëgee bépp doomu Sénégal fu mu munti nekk ci àdduna bi ba soxlaa ab kayitam lu jar muy sonn ndax àdduna bi internet xarala yu bees yi tax na ba loolu war na nekk lu yomb ñu war leen cee taxaw war a leen gunge ndax doomu Sénégal mënul tumuranke ci bitim réew waruñu nangu ñu leen di dóor ñu leen di daxee ci ay mbett te ñun ñu toog nangu fii teeru ay doomu jàmbur yu jóge ci yeneen i réew ku ci suturaalul suñuy doom war nañoo bañ a mën suturaal sa doom fii ndax dëgg moo nit day sotal mbokkam il est temps que ñu sotal suñu ay doom yi nga xam ne ñu ngi bitim réew di xam ni tamit seeni i mbébét ñoom ak seen i mooy ku ci daan dooleem gannaaw li muy dimbali ay waajuram di leen suturaal ak seen i mbokk li mu yaakaar mooy am fi fu muy dëkk te loolu yomb na ndax dëkkuñu dakaar rek Sénégal yëpp lañu dëkk li war mooy ñu gunge leen de façon très claire et pour que fépp fu ñu nekk ci àdduna bi bu ñu soxlaa ñoom lu mel noonu réew mi taxaw leen war leen a taxaw it ci li nga xam ne am na solo trop trop trop trop mooy ñoom it léeg-léeg ñu am ay possibilités ñëwaat ci suñu réew pour indi fi ay investissement te loolu ci benn guichet unique bu simple mënoon nañ leen gunge pour que bépp opportunité bu ñu am ñu indi ko ci suñu biir réew mu njëriñ leen mu njëriñ suñu réew ma yaakaar ni tamit Sénégal gii nga xam ne suñu mbokk béykat suñu mbokk sàmmkat suñu mbokk nappkat yi ñoo gën a bëri laaj na ñu gës gëstuwaat li ñuy doxalee suñu diggante ak ñoom ndax dañ doon amee na bor dañ leen ameel bor bu rëy bor bi nag mooy bu ñu seetloo di Sénégal indépendant yi ba léegi du app bu jot fekk amul ndimbal bu jógee ci nguur gi jëm ci ñoom sans pour loolu indi yokkute ci seen biir ñu war a waxtaanee loolu fii damay tënk rek pour ñu déggoo ndax li ciy war bu soobee yàlla dinañ ko taataan ci yeneen anam waaye daal war na pour que suñu mbokk nappkat bi mun dundee métier suñu mbokk baykat bi mun dundee métier suñu mbokk sàmmkat bi mun dundee métier te noonu it suñu mbekk yi nga xam ne ñu ngi ci artisanat bi ñooñu ñoo nga xam ne ñoom ñooy première matière première noonu laa koy woowee pour politique industrielle ñu mun leen a gunge pour que ñoom ñu migrer du secteur de l'artisanat à un artisanat plus fort wala du secteur de l'artisanat au premier jalon d'une politique industrielle ma yaakaar ni war nañoo gëstuwaat nu ñuy jàngalee suñu réew mi ndax ba léegi suñu ay ndaw yu bëri xamuñu ñun ñooy ñan xamuñu lan mooy Sénégal ndax xamuñu kuy seen maam xamuñu kuy seen pap te ndax jàngale wuñ ko suñu daara yi ñu war a xam suñu bopp ñu war a xam kuy sëñ Touba ñu war a xam kuy maam Maodo ñu war a xam kuy maam Boukounta ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne nekk nañ ay valeur ak ay référence nekk ci diine yi nekk ci tarixa yi nekk ci fu ci Sénégal ci wàllu politique ci wàllu syndicat ci lu nekk waaye bu ñu ko jëlee ñu xool naka la ñuy développer ay mécanismes yuy tax ba bu nga xam ne wóor nañu ni kii mënul continuer ci jàngum école ñu mun ko utal pexe mu jàng métier suñu jàng bi nga xam ne mu ngi ci daara yi ñu bàyyi mu bañ a nekk benn perspective kese maanaam képp ku rekk ci daara di jàngee daara ci Sénégal lenn rek nga yaakaar ci sa àdduna mooy nekk sëriñ daara te alors que mënoon nañu gungee ñooñu pour que nag bu ëllëgee ñuy jàngal xale yi naam suñu diine waaye it ñu jox leen ay matuwaay pour que ku ne mun ëllëg jàng benn métier bu nga xam ne bu ëllëgee mun na ko exercer bu soobee yàlla. mooy nit bu nga xam ne bu dee man teg na ma wetam wóolu na ma gunge na ma jàngal na ma te li njëriñ réew mi ñëpp xam waaye ni ma ko waxee rek doona moom bu jotee doom bu yaakaar rek war a mun doon te boo xoolee sax suñu diine ñëppay doon waaw ndagam ñëpp mun doon nag ndax ku nekk samp dëddam rek ku mën na moom li mu liggéey ci suñu réew mii ak jàngat bi nga xam ne nekk na ab ndam bépp doomu Sénégal ci àdduna bi bu mu taxawee ne mënoon na samp ndëndam waaye kàddoom la bëgg a sàmm waaye it bëgg na jàmm wéy ci réew mi mu ne day dellu ginnaaw bëggatul dekk candidat contrairement à li ñu sàmmoon ñun li ñu sàkk woon ñun loolu dugal na Sénégal ci histoire te nag sunu démocratie war nañ ko tiitaroo de sunu démocratie moo ñu may Senghor Senghor ñëw ba xam ni ah réew mi commencé na ko dépassé bàlleen ma ci kàddu yi mu dénk Abdou Diouf ndax moom Senghor bu muy nekk président jamono yooyu bu ngeen ko seetloo Afrique coup d'état yi dañoo bëri woon réew yu bëri ay militaire jiite ko ñun nag yàlla sàmm nu ndax amoon nañ démocratie bu tàmbali woon ñu wéy ci ba Abdou Diouf ñëw xam ni dafa war a wéree liggéey mu liggéey nag lu am solo teg benn administration bu am doole ñu ubbi démocratie démocratie boobu moo indi Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade falu gëmloo ñu ni lépp lu am ci àdduna war nañ ko mën a am fii ci suñu réew mu décomplexé na bu paree Macky Sall ñëw in nag li ñuy woowee benn vision bu bant bu nga xam ne c'est vrai lépp lu ñu war a séntu ci àdduna war nañ ko mën a am fii waaye nag bu ñu fàtte Sénégal bi ci biir le Sénégal de l'intérieur bu ñu fàtte Sénégal bi néew doole le Sénégal social kooku nag moo ne moom mission ci boppu Sénégal dina jeex bu soobee yàlla ci joŋante yi ñu jëm moo waral ab coalition jóg mu nekk ay parti ay mouvement ay kilifa ay kuréel yu bëri yi taxaw laaj ndax ma nekk seen mbër mu ne leen nag soobee yàlla ndagam Sénégal bu bees lañ bëgg tabax man pare naa pour nekk seen mbër bu soobee yàlla pare naa it bu soobee yàlla benn président la ñuy fal ci joŋante yi ñu jëm waaye waaye période bi ñu toll nii dafa jar ñu waxtaanee sumu réew kon nag képp ku bëgg samp ndëndëm na ñëw samp ndëndëm wax nag lan mooy yéeneem ci sumu réew bu boobaa sénégalais yi àtte ndax ñoom rek ñoo war a mën àtte maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm lu si dal lu si dal Sénégal lu si dal Sénégal waaw candidat nga lu si dal Sénégal tukki du bari mu ci xam-xam la yàgg ci gaal mu ci xam-xam la leen jàmm ci seen boutique bii di American Shop boutique bi ngeen doon xaar yegg si na ñu ngi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi janoog seen karo kër Xaadim boutique bi nag li ko tax a mooy gunge sénégalais yi ci ay produits de qualité 100 pour cent américain boo duggee lépp li nga xamante ni da ko soxla sa biir kër da ko fii am muy ay matériel électroménager am nañ ay frigo yu mag marque say by side ay Samsung ay LG attention frigo yi dañu ko garanti téléviseur de haute gamme dimension boo bëgg am na fi image yu leer man yii xeetu image man musuma koo gis muy 40 pouces 48 50 65 75 ba ci 85 suñu numéro téléphone mooy 77 921 59 92 American Shop suñu spécialité ba tax ñu ñëw fii ci Ndakaaru mooy gunge ñiy yëngu ci wàllu hôtellerie équipé leen ba mu baax muy chambre à coucher ay matelas orthopédique yu baax original jóge fële ci Amérique am nañ ay lampe abat-jour ñu koy accompagner yow xoolal yi xeetu lal suñuy xeetu canapé suñuy xeetu meuble yow daw sil gaaw ah yéen ñi dëkk Mbour am nañu showroom fii ci croisement Saly ñun American Shop dañuy gunge ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu hôtellerie bàyyiwuñu appartement meublé yi yow sa appartement da nga ko defar ba mu baax waaye am na lu manqué li mu manqué ñun ñoo ko yor di ay xeetu meuble yu baax ay chambre à coucher benn détail duñu ko bàyyi ba ci serviette yi nga xamante ni sa gan yi bu ñuy ñëwee ah moom matériel moo mujjee xew ci àddina bi jugee fële ci Amérique am nañ ay chaise roulante muy suñu papa yi ba suñu maam yi suñu chaise roulante yi dafa baax lool ñi nga xamante lu ñu am ay jafe tànk mën nañ ci toog am nañ ay béke yu dëgër yomba doxee am nañ ay piliyaan suñu piliyaan yow xoolal bu la neexee da koy lem def ko chaise bu la neexee ubbi ko ba mu baax def ko lal ñun American Shop dañu sóoraale suñu rakk yi suñu doom yi waaw six ans ba dix ans andil nañ leen ay dàll yu rafet couleur yu baax ci été bii ñu nekk ah darab yaa ngi fii coton 100 pour cent waxoon naa la ko sànq waaw waaye foog ma leeral ko am nañ ay mbàjj ay ensemble ah yi xeetu coton suñu parfum yi nag dafa léger ndax ci tàngaay la ñu nekk waaw parfum yi daf lay jox xeet bu neex góor jigéen ah suñu frigo baar yi dafa baax ci tàngaay bi waaw boo koy utiliser du la del benn yoon da ngay teg même pas vingt minutes mu jox la ndox mu sedd American soap waxoon naa la sànq ne la boo jékkoo nga baale ma ne eh kuy dóora man kuy saaga dañuy jaay ay vaisselle suñuy xeetu vaisselle yi ensemble am nañ ay filtre a eau am nañ ay thermos yu ànd ak robinet da ngay def sa ndox tijji mu daal di xel yi ah yow miy dawal moto ñun waa American soap sa kaaraange def ñu soxal moo tax ñu àndil leen ay casque am sécurité jóge fële ci Amérique waa American Shop ni ma usa insistel ci suñu matelas yi wàllu tax matelas gonflable la da ngay ba mu jóg nga nelaw ba yandoor boo paree daal di koy tëj def sa saak boo amee xew mën nga koo utiliser booy tukki mën nga koo yóbbaale kon sa màggal diina gën a neex boo ci àndee American Shop wax naa la numéro téléphone bi loo bëgg a xam adresse bi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi jàkkaarloog seen karo kër Xaadim man daal American ma